tout droit Abass Confection indi na lu bees. waaw ñu ngi noonu blouson cinq pièces yaa ngi nii gis ngeen ko daal mu ngi sol blouson bi. ak door sama copain sol mooy bi la mi ma la loisir bi. été ah. nee naa leen Abass nag mu ngi nekk Dakar Grand Yoff côté arène Adrien Senghor ci tali Pamakaas bi. livraison partout au Sénégal ah fu nekk boo commandé ci Abass mu livré la ko. tout droit ngeen commandé raw. ca gaay combat bi Pogos am siw la waat na mu ngi naan bëñu raw du moo nekk Pogos sol na ko Pogos carrément Pogos am na ngemb Pogos am na ngemb waaw waaw carrément Pogos El Bandi waaw waaw Pogos daan na ko Pogos daan na ko